Ah, waaw asalaamaaleykum waaw maa ngi nuyu ñëpp di siyaar ñëpp waaw Ndeye Issa maa ngi nuyu di siyaar yéen ñëpp waaw gis nga nag ñoo ngi nii di jóge egg grand théâtre waaw acca yéen la xaar de yéen waa groupe bi ñëw leen tëj leen panel yi ah. Ah. Ah, ça, ça, ça dépend, hein? Ça dépend sur heure du quoi? Ça dépend dans heure. La moo tax. ah Pastef Daaru Manaan ñu ngi nii war a waajal tey jii war a dem Grand da daje premier ministre gaa yaa ngi nii bis yaa ngi ne bële si la bokk yaa ngi nii ñu war a dem te jii Grand Théâtre daje premier ministre waaw grand théâtre lañ jëm de maam Thierno Ibrahim ñool ñi nii Pastef Daaru Manaan ah waaw ku sell ki maam Thierno ñu nii ay jamono ay jamono kii demoon na Kër Massar gi de Daaru Manaan gii demoon na demoon na Kër Massar de tey nag mu ngi nii jëm grand théâtre ah xare na ba daan mu ngi nii de waaw waaw grand théâtre barki yonent bi waa gëm de